dagg bi ñu ngi siy jégalu macha allah ñu ngi waaye Modou Lo mi ngi noonu mi ngi noonu di ñëw si ginnaaw moom Modou Lo loolu waa des arènes ginnaaw bu si te ñëwee euh, minutes après l'arrivée du roi Modou Xarañ Lo ndeysaan Réma Diop ay way noonu Réma wayu noonu ndeysaan Rema wa ngi way Modou Lo xarañ loo mi ngi ñëw oh ba nga juddoo nga am jom loolu Badou ba nga juddoo jom loolu waaye fulla fayda borom la kenn du yow le roi mi ngi ñëw Modou wa ngi noonu si ginnaaw di ñëw Mansour Ba yaa ngi seen Modou Lo ba yaa ngi seen Modou Ayda Ba Modou Lo ngi ñëw si ginnaaw le roi ngi ñëw ba yaa ngi seen mbaru kumbis ba kumbis Diallo Modou Lo ngi ñëw ba yaa ngi seen mbaru nogay bi ngi sa ginnaaw moom Modou xarañ Lo le roi egsi na ndeysaan doomu mbërëg wali way màkkaam ak baayam la le roi la le roi est là Modou Lo loolu Dame Siré bi Siteu ñu gën koo xam ci yalmin bi gaay di ko wooyee Siteu borom dëkk bi muy bàyyi koo jàmm gën si kaab mbaaw ñoo koy dar day raatale ba caaroy ñu noonu day raatale ba jàmm gën ak fan grand mbaaw ak fan petit mbaaw ak fan si mbaaw ak fan ñëw jàmm gën foora ak fan si Siteu yalmin bi bu jigee fa fan ñëw maa la wax loolu. jógee bu ko neexee dox ñëw arène nationale. jaar arène nationale. keroog ba mu wàccee aéroport Blaise gis nga mbooloo dafa mel ni jomaay moo wàcc. maa la wax loolu. xale yi dar ko. c' est un phénomène de la lutte. convoi. c' est un phénomène. ñu jubali dem fële nga xamante mooy ab jàmmagan. waa jàmmagan muy daje kan. le roi doomi parcelle ji. Euh, doomi Taïba nga xamante ne ay supporters am du leen guddeel. déedéet yabu leen. kookoy Modou Lo. le tombeur de Kane. Boy Niang. le tombeur de Kane. Ama Baldé. le tombeur de Kane. Boy Kayré. le tombeur de Kane. Popi général wala du Popi général sax Jos. le tombeur de Kane. Papa Sow mii tey. <laughs> moom Modou xarañ loo. say déggal lool daan na ñooñu. laay laaxee bëri naa ñooñu. laay laaxee bëri mag Palmaris. bëri bu rëy ba sa Demba Diop. say nañ ko. ñaari doomi penda naar yi mooy karaka lu yàggul dara couronne la teg ca bopp cinq couronne bi la ci bopp kee la premier xoolal couronne bi mu teg Modou Lo ñëw na Eric Favre le petit roi maay seen empereur loola waykat bi way nee la loolu ba mu way un événement à saluer non dañ koy saluer Eric Favre c'est date à retenir déggal la date bi jàpp nañ ko jàpp nañ ko 24 novembre ku jàpp ni date bi waa waa kii ko moom waa jàmbaar datu jàmbur la kon bu ko kenn jël dat ba nga sa datam laa ilaaha illa Allah dat ba borom dat bi jël datam le 24 xarañ loo matu kenn du yow <laughs> sama jigéen ji déggal ngi bég maa ngi de ñu ngi nuyu borom Bambey maa la wax loolu borom Bambey maa koy nuyu sëñ Alla Bala muy ku baax bàyyi bébé Faala ñàkk ki ñaan ñu dem Bambey mu defal ñu teranga yóbbu ñu këram dalal ñu fa sëñ Alla nuyu naa la baax siyaar la loolu waa ñëw na moo doon ñu noonu du yéeg Modou Aïda bee ngi ñëw di yéeg Modou Aïda doomu géej waaye bee ngi ñëw di yéeg loxo waaye la sëñ Fallou Seck eh soxna jaara foofu féetee Modou Lo ñëw na. bàyyi banal foo fayte xoolal Modou Lo eh banal foo fayte la ilaha illallah Modou ñëw moodu loo Lo dugg si na mbokk internet yi Modou ñëw na Modou Lo ñëw na de xool ko lu muy def xoolal loolu jeu ngi noonu couronne baa ngi noonu mu teg jëlaat nañ couronne bi eh dugalaat ko Mansour baa ngi noonu dencaat nañu couronne bi PDG dencaat nañu couronne muy ku baax Mansour kenn day moom ñàkk ki ñaan le fils héritier moom PDG de père ba doomi Ziguinchor baa ngi noonu doomi Casamance baa ngi noonu bu yaru ay dëkkam merewuñ ko bëgg waa dëkkam Casamance jàppale ko respecte nit ne ko doxal nga dem am yar loolu tiit bul ragal fonk nit ñi loolu Mansour Ba kenn du moom kenn mim réew eh génie loolu hey eh, Modou ñëw na eh, salé bi mi ngi salé public bi fan la jëm fan la jëm si Siteu la jëm wala wala fan la jëm nañu wàcc foofu leer nañu xool nañu wàcc fii leer nañu wàcc ndeysaan mi ngi noonu force de l'ordre yi wàcc leen noonu koron bee ngi noonu ndeysaan ñoo ngi koy wane roi des arènes xool fu ko gars yi denc roi des arènes xoolal fu ko gars yi denc événement bi événement la lu wóor moo koy génne koron <laughs> bii mu ngi noonu lu wóor a koy jëlee parcelle waaye mu ngi ànd ak waa parcelle ñoo ngi ko dar seen na Serigne Ndiaye. ñu noonu. Serigne Ndiaye ñu noonu. moom jël na sees ba. Ibulaay nekk ci wetam. ñu ngi si ay nitam lay toog. laa ilaaha illallah. gars yi dañuy lamb. laa ilaaha illallah. gars yi dañuy lamb. xoolal loolu. Mansour yaa ngi nelaw yeewul. xoolal loolu. Mansour bul nelaw. Babacar a ngi reporté ngay nelaw. mu ngi noonu. Mansour bi ngay nelaw ba dina wóor. xoolal Serigne Ndiaye. mi ngi jàkkaarloog Modou. sorcier baa ngi noonu. le sorcier de Modou Xarañ Lo. Mbacke Faye nekk ci wet bi. moom Mbacke Faye. a di nee naa la potuloo ngi noonu. non doom la te mi ngi eh, waaj bis. mais mooy papam. lay Pythagore wala. le tombeau de Modou Lo. la boo ko déggee Balla Gaye jël. mu waaye moo tax Modou saa yu amee bis. ki nga xamante ni mooy lay Pythagore. ki nga xamante ni mooy Serigne ki nga xamante ni. mooy Petit Lo. Uh-huh. du ñu des ginnaaw mbagg yu fay mais gisuma wul ana Papis. Papis ah est-ce que tukkiwul. ana Papis est wul. est eh, Papis dem na dem na. dem na Mali Fara. <laughs> wala mu dem Suusandu. dégg nga lool wala Kumpentuun. mbaa du laal Inde. wala mu dem Inde wax nga dëgg sa Chine. <laughs> dem na wuyu Inde ya. loolu noonu maa la wax loolu. ah

Mm-hmm. Thank you.